asalaamaaleykum mbokku internautes soppi ak téléspectateurs yi taamu la TMS TV dalati leen ak jàmm seen émission invité de la rédaction invité de la rédaction nag tey ñu naxa waxtaanee li nga xamante ni moom mooy mbëkk mi maanaam immigration clandestine waaye ci bile waxtaan duñ ci wéet ndax dañ ci ànd ak ki nga xam xamante ni journaliste la waaye itam xam-xam daal xam-xamam màcc ci wàllum immigration clandestine muy wuyoo ci toxu Assane Sarr Assane ñu ngi leen nuyu. Anta maa ngi lay fay. Mhm. di la euh, jaajëfal baax a baax ci invitation bi. Mhm. et di toftal nuyoo bi également ci euh, techniciens yi nga xam ne ñoom itam bu ñu mhm. yembee ñoom la. Euh, di nuyu mbokku téléspectateurs yi nga xam ne c'est grâce à cette télévision itam ñu am les informations relatives surtout. à l'actualité sénégalaise mais également itam ak immigration clandestine. di la delloo kàddu gi di ñaan yàlla rek lépp lu ñu fi waxtaanee itam nekk ab njariñ. et di ballu ak itam. Euh, jërëjëf Assane Sarr tey bu ñu xoolee immigration clandestine mu nekk loo xamante ne ni euh, du fi lu bees waaye itam du fi màgget ndax gis nañ ne yàgg na fi am itam euh, nekk phénomène boo xamante ne ni ci réewu Afrique ñu ngi koy dund rawatina ñun ñi nga xamante ni fii dañu dëkk muy réewu Sénégal tey bu ñu doon xool lan moo mbubat li nga xamante ne moom mooy immigration clandestine. alors mu nekk question bu am solo. Mhm. mu nekk également une question d'actualité. Mhm. ndax itam immigration irrégulière. dafa nekk mbir moo xam ne doon phénomène sénégalais. Mhm. c'est un phénomène africain. Mhm. parce que réewu Afrique yu ci bëri daanaka dañ koy dund. Mhm. Euh, tey bu fekkee ne dañuy xool la nga xam ne moo sabab boobu les immigration irrégulière euh, dafa jëm ci li nga xam ne moom moo di euh, pauvreté maanaam ñàkk gi nga xam ne. doomi Afrique yi ñu ngi koy jànkonteel. leneen li également mën naa ne la faim maanaam li nga xam ne moo di xiif gi nga xam ne ci diwaanu Afrique. kenn naatablewul doole gi mu am. nga xam ne amaana ay causes économiques la mm-hmm. maanaam boo xoolee la quasi totalité de l' économie mondiale elle est détenue par l' maanaam mm-hmm. Europe lépp li nga xam ne moo jëm ci ko ñoom ñoom ñoo ko yor mm-hmm. donc tey jii euh, diwaanu Afrique lu ci toll ci 16 euh, pour cent jàpp naa ne xëy na moom la ñu yor ci wàllum koom euh, de ce fait ci wàllum économie ndaw ñi itam dañuy gis ne Europe moo nekk alternative wala moo leen mën a permettre ñoom itam la nga xam ne moo di seen mbébét ñoom ñu mën ko mottali ca mu gën a yombee cause sociale. Mhm. mooy tey da ngay gis ab ndaw bu nekk ci diwaanu Afrique. Mhm. Euh, ñu koy dendale ak nit koo xam ne amaana yàlla may na ko ba mu sottilee mhm. euh, xanaa gisoo diw xanaa gisoo diw. et cetera et cetera c'est des euh, causes yi nga xam ne amaana day tax ndaw mi dafay faral di am la ko metti ba mu bëgg a rejoindre l'Europe à tout prix. beneen bi également moom mooy. benn cause institutionnelle mm-hmm. mooy que ne xëy na amuñu des ministères yi nga xam ne c'est exclusivement réservé mm-hmm. euh, pour la lutte contre l'immigration irrégulière mm-hmm. euh, il y a itam des causes éducationnelles des causes psychologiques entre autres mais pour limiter en tout cas euh, le débat par rapport à ces causes yi nga xam ne en réalité ñoom ñooy intervenir en premier lieu dañuy wax ne c'est des causes économiques c'est des causes sociales waaye li ci mën a jàpp rek mooy immigration irrégulière nekkul un bi nga xam ne tey dañ ko war a individualiser surtout pour avoir benn solution bu définitive mhm. et c'est une question bi nga xam ne dafa dal beaucoup de pays africains mhm. naturellement il doit y avoir ce que appelle des solutions plurielles mhm. euh, man gis-gis boobu laa ci am jàpp naa ne également xëy Afrique euh, au bout de quelques na euh, tey boo ñëwee ci réewu Sénégal dafay mel ne ndaw yi ñoom tuñ dee. Mhm. parce que la fait ñu tuddee li nga xamante ni mooy dem foofu du Barça wala Barsak. Mhm. dafay mel ne euh, fii euh, ñoom dund bi ñuy dund du dund dañuy dem Europe pour mën a dund donc mhm. Europe à tout prix ban jàngat nga am ci loolu. alors mu nekk euh, lu lu lu loo xam ne. Mhm. ñun ñëpp ci war a def jàngat. Mhm. muy Europe à tout prix. Mhm. damay faral di wax ne. Euh, l'Europe n'est pas plus nantie que l'Afrique. pour ceux qui connaissent la vraie valeur de la recherche. en réalité ndaw Sénégal wala ndaw Afrique. Euh, lii tax ñoom ñu bëgg a dem Europe à tout prix. dafa bokk ci ne. amatuñu espoir. ci seen réew. maanaam dañuy gis ne dañuy jàng ba yey seen i kayit. am ay diplôme yu dul jeex. mais bu jëmee ci ñu am la nga xam ne moom moo di as ndëgër laay. jëm si seen liggéey dafay ñàkk. dañuy bëgg a liggéey ñoom ñu tek la nga xam ne moo di ay projet ay initiative état yi duñu leen ci jàppale. et loolu itam ki ko gis. Euh, gis beneen moromam bi nga xam ne bi mu demee tugal yàggul. mu ñëw tabax euh, am ay biens yu dul jeex moom day jàpp ne itam Europe. lu dul jeex ma nga fa. Mhm. je rappelle que tey. Mhm. Euh, bu ñu defee un peu euh, xëy na benn concordance mooy li jot a xew yàggul dara. Mhm. Euh, ngeen jéggal ma amaan naa tudd école bi. xëy na du publicité muy IAM. mu am ay ndaw yi nga xam ne dañ leen yóbbu Toulouse pour deux jours. ñu nekk au nombre de vingt. mooy ñaar fukk. tey treize ñoo daw seeti ñoo ñibbisi mhm. et que jàngat bi ma ci defandi mooy mhm. c'est le désespoir qui hante le sommeil de certains jeunes sénégalais mhm. kon tey euh, jafe-jafe gi dafa gën a profond que liñ ko yaakaaree ñoom euh, dañoo daw maanaam en décembre 2021 j'étais en Espagne dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine également de l'interculturalité donc facilité par euh, Ndank Ndank une organisation espagnole bi nekk en Pays Basque mais bi sama séjour jeexee dama ñibbisi parce que mhm. euh, gëm naa ne mhm. euh, Afrique xëy na mën na ma jox yeneen opportunité mhm. euh, ba ma mën a xëy na toog yàlla def itam ma am fi xewal waaye itam loolu exclurul quand même le fait de vouloir voyager mais damay jaar ci yoon nga xam ne ma war kon tey ndaw ñi désespoir la ñu am euh, tey ndaw ñi li nga xam ne moom moo leen di pousser à ce que ñu vouloir rejoindre mm-hmm. l'Eldorado inexistant comme j'ai l'habitude de le mm-hmm. mooy que ne amatuñu espoir ci seen i réew mm-hmm. pour rejoindre un peu un ami qui a écrit un ouvrage sur l'immigration clandestine entre réalité et espoir donc pour dire que fii euh, li nga xam ne moo fi ëpp mooy mirage mirage mooy lan naan a géntu la amaan na euh, espoir la bu dul aboutir à des euh, euh, ñu ngi ñu ngi fi itam que ndaw yi dafa am ñoo xamante ne dañu yàkkamte hmm. parce que bu fekkee ni sa cas en est un parfait exemple hmm. tey dem nga Espagne ci sa wàllub liggéey pourtant demulu toogaloo foofu dangaa hmm. ñëw ñibbisiwaat xam ne li li lay am sa dëkk bi li fi nekk booy toogee ak sa compétence ak bañ a yàkkamte nga ko am et gis gisuloo ni tamit ndaw yi dafa am ñoo xamante dañu yàkk yàkkamti il faut réussir à tout prix dafay mel ne dañuy daal di samp benn euh, grain bëgg ci fi ñu taxaw mu daal di pousser ce qui est impossible aussi. alors euh, damay faral di wax ne <coughs> eh, l' agence nationale de la statistique et de la démographie muy ANSD. Mhm. war na gën a mën a ñoñal ab liggéeyam. Mhm. parce que ñoom ñooy yor wàllum saytu. Mhm. Euh, population sénégalaise nan lañu toll. war nañu saytu. ndaw yi ñàkk seen bakkan ñaata lañ. entre mai 2022 juin lu toll ci 11000 ndaw. Mhm. ñàkk nañ seen bakkan. Mhm. entre 2014 et 2022. lu toll di 42000 personnes egg nañ ci di Europe kan moo mhm. ëppale. kon ñi egg ñoo ëpp foofu ñi nga xam ne mhm. eh, ñàkk nañ seen bakkan mais mhm. ci sama euh, téere bu njëkk bi ma mhm. bind en 2020 euh, ma dippee ko prémisse maa ngi naan tant d'âmes dans l'Atlantique tant de rêves dans les vents désertiques tant de chemins perdus la liberté parfois détenue mooy tant d'âmes dans l'Atlantique mooy ñi euh, ñi jaar ci mboy gi tant de chemins perdus mooy ñi nga xam ne réer nañ ci àll gi la liberté parfois détenue mooy ñi nga xam ne egguñu dañ leen tëj ci la nga xam ne moo di prison libyenne yi wala prison marocaine yi autres euh, Maroc lan moo tax jamono ji mu euh, jafeel la nga xam ne moo di dem géeg ñëw gi c'est parce que son pouvoir économique itam ñooñu dañ ko bëgg a neutraliser mhm. dañ ko bëgg a anéantir mhm. donc du coup pour dire que tey Sénégal jàngat bi mu war a defal yi par rapport à cette question de l'immigration clandestine mhm. dafa war a nekk ci njël benn mooy régler la question de l'éducation jàng 17 ans wala 15 ans 12 ans génn war a am liggéey ñu lay jaayloo ay mbir yoo xam ne amaana euh, amul benn rentabilité économique. Mhm. Euh, nga ñëw di déposer dans une entreprise ñu ne kan moo lay et tant d' autres yi nga xam ne en réalité war nañu ko mën a bàyyi xel. Mhm. et pour dire que y' a beaucoup d' autres mots MAUX. Euh, mhm. yoo xam ne xëy na les mots peuvent être quand même euh, les solutions définitives mais man li ma gëm mooy ndaw ñi am nañ ay raisons yi tax ñu bëgg a dem Europe à tout prix waaye itam état du Sénégal a le droit et également cette responsabilité euh, de de proposer des alternatives maanaam des politique publique. Mhm. ngir jàppale ndaw ñi. Eh, fi nga wax sax côté Maroc ak Libye mais dañuy gis ne dafa am ay ndaw yoo xam ne dañu dugg ci gaal gi. tey hmm. man li may wax j'ai j'ai yoo xamante ni hmm. ci gaal gi lañ jaar euh, ba hmm. dugg nee nañ bu ñu yeggsee ba Libye dañuy dañuy woote ne la wool sa famille. ñu indi xaalis ñu yónnee ñu yónnee xaalis dafa mel ne tamit dafa am benn business boo xamante ne am na ci yeneen pays yi nga xamante moo nekk ci côté du nord ñu koy daal di def. alors xam nga yaa soxla na appel euh, CEDEAO. Mhm. permet la libre circulation des euh, biens et des personnes. Mm-hmm. Euh, tey euh, boo xoolee la continent africain jàppale ga ca war. Mm-hmm. jëm entre pays et pays dafa am. la cay mm-hmm. sooxe ndax itam bu fekkee dafa am ce que l'on appelle la corruption émotionnelle parce que waajur boobu woon nekk sa doom mu ngi fii maa tiimale fetal boo yónnee siwul nanga ma boom ko Euh, waajur woowu bu amul sax dana ko wuti mhm. donc pour dire en réalité que ndaw ñi dañoo amul espoir moo tax itam bu ñu nekkee face à ces problèmes mhm. ñuy woo seen i waajur ngir ñu indi leen des solutions définitives mhm. donc pour dire que les solutions sont euh, les questions ou bien les causes sont assez nombreuses man personnellement je connais des amis euh, deux frères du même père et de la même mère c'est des amis à moi qui ont perdu la vie en Mm-hmm. ñoom ñaar ñoo bokkoon même gaal dem ca et pourquoi li may wax itam am crédibilité c'est parce que j'habite dans les îles du Saloum mm-hmm. xam naa bu baax a baax euh, fa affaire yi di départ xam naa bu baax a baax euh, mm-hmm. la ñuy jànkonteel xam naa bu baax a baax euh, tey ñoom naka la ñuy def ba braver tous les intérêts yi pour dire que tey c'est une question actuelle waaye itam ña ko maîtriser ñoo ci war a intervenir parce que les États itam sont parfois complices face à cette situation que vivent en réalité beaucoup de jeunes sénégalais. Mm-hmm. et que man li ma gëm moom mooy. Mm-hmm. Euh, li maam Cheikh Rafal di wax rek. Mm-hmm. bëri pexe nekk ci dëgg da koo gën mhm. et que suñu état yi itam war nañ gën a mën a nekk ci dëgg mhm. dès lors que itam ñu gis que cette situation est en train d'anéantir mhm. surtout l'espoir de cette jeunesse sénégalaise euh, li nga xamante am na fii comme liñ ko expliqué ci wàllum immigration clandestine euh, tey dafay mel ne ndaw yi xare la ñuy dañuy day mel ne ku jëm xare euh, c'est-à-dire que ni bu ñu fa deewee sax dafa mel ne ils ñoom accomplir nañ seen mission c'est-à-dire que tukki bi à tout prix comme ni nga ko daal di waxee waaye tukki bi aussi mooy tax nga daal di am beneen dund tey bu ñu continuer nii muy continuer di am ci euh, réewu Afrique bi ban conséquence la ñu mën a jógal alors il y a ce que l'on euh, mm-hmm. la nga amoon ci démographie muy wàññeeku mm-hmm. gis nga Sénégal yaakaar naa ba 2015 si je me trompe pas mm-hmm. euh, xëy na ci jàngat ma jot a def mën naa juum itam Euh, population yi booy xool ndaw ñi sax boo leen poser la question à l'école dañ la naan nous sommes 15 millions d'habitants mhm. et il y a ce la croissance démographique mhm. taux de mortalité bi euh, ak taux natalité bi itam am na benn écart mhm. pour dire que tey ndaw ñi nga xam ne itam ñu ngi dem dañoo am lañu gis tugal te la tax ñuy dem mooy dañuy faral di yeewu yenn saay du ñu am benn ñaar dërëm bu ñu jox seen waajur dañuy faral di yeewu yenn saay gis seeni moroom di tekki mm-hmm. dañuy faral di yeewu yenn saay gis ne jafe-jafe gaa ngi gën dëkk mm-hmm. et ñoom solution bu ñuy gis mooy euh, dem tugal mais tamit dañuy faral di gis nit mm. tukki daal di ñàkk foofu ba kanam ci gaal gi euh, ñu duñu gis loolu parce que ku ne u mm-hmm. ou Barsak euh, maanaam Barça bi njëkk mooy Barcelone ñu def le diminutif ou Barsak mooy ñu ñàkk seen bakkan à tout prix Euh, tey ki nga xam ne. donc euh, ils n'ont pas peur d'affronter la mort. non non je pense pas je pense pas. xam nga mhm. lu tax je pense pas. Mhm. et c'est parce que ñoom xam nañ lañ fay fekki. Mhm. parce que ku nar a def traversé euh, géej. nga war a def douze jours wala quinze. mu leer na le am na lépp lu la mën a fekk ci géej gi li nga ne non da ngay dem tey demoo gratuitement. parce que tu as de l'argent à déposer. et naturellement itam da ngay dund toutes sortes de difficultés. et que loolu nga jànkonteel ko nga gëm ne itam di itam nga gëm ne mm. les polices yi nga xam ne ñoo nekk ci géej gi dañuy def seen liggéey comme ni mu waree mm. euh, kon loolu noonu xam nga la la cay fekk mm-hmm. waaye itam da ngay dem parce que am nga nga gëm nga ne di nga yegg waaye itam gëm nga ne itam mën nga bañ a yegg mm. donc ñi ci euh, ñàkk bakkan ñu bari itam mm-hmm. euh, xare lañ ko jàppee yenn saa sax ñu dëjal koo xam ne génnul àddina yenn saa yi waajur toog ba gisatul doomam mujj ko dëjal kooku itam dellu si mm-hmm. donc d'exemples yi nga xam ne ñu koy faral di gis relative relative surtout à l'immigration clandestine mais li may wax rek mooy ndaw ñi itam bu leen pointe du doigt mm-hmm. man je ne pointe jamais du doigt euh, la jeunesse africaine mm-hmm. d'autant plus que c'est une jeunesse très engagée mm-hmm. une jeunesse très déterminante waaye itam li des mooy les politiques relatives surtout à la promotion de cette jeunesse euh, tey bu fekkee ndaw ñi itam ñoom am nañ doole am nañu xalaat am nañ yaakaar ci Afrique mm-hmm. alors que ñañu jiite itam dañuy faral di nëbb seen i gët mm-hmm. bu yàggee itam ndaw ñu Europe rek la gis mm-hmm. ci biir conséquences yi ba tey yow yenn conséquences yoo xamante ni tey mën na ko indalaat ñi nga xamante ni mooy diwaanu Afrique alors diwaanu Afrique xam nga dañoo ne dama liir benn benn borom xam-xam euh, économiste la ñu koy wax Carlos Lopez chroniqueur également euh, mu ne l'avenir c'est l'Afrique et boo liir également euh, tey euh, Kwame Nkrumah ci ay collection itam. Mhm. li ñuy gëmloo mooy euh, Afrique continent d'avenir la. Mhm. kon tey loolu dafa bokk ci conséquences yi. Mhm. maanaam tey bu ñu naree defar Afrique wu yees. ak ban ndaw lañ koy defaree. ak ndaw bi dem di ñëwaat wala ndaw bi dem toog. te ñaata ndawu Sénégal ñaata ndawu Afrique ñoo dem Europe mu neex ñu jël nationalité. et ñoo xam ne dañuy fàtte seeni réew. Mm-hmm. foofu la Senghor di intervenir. Mm-hmm. di wax ce que l'on appelle le rendez-vous du donner et du mm-hmm. recevoir. mu ne bañuma itam nit dem assimilé wu une connaissance extérieure. waaye itam ba mu fàtte. la nga xam ne moom la bàyyi gannaaw. donc pour dire que euh, tey euh, y a ce que la dévalorisation des cultures. y a ce que l'on la perte des valeurs. Mm. mais également li nga xam ne itam moom moo jëm euh, ci fàtte ne euh, développement Afrique say loxo war na ci juddu itam. Mm-hmm. bon loolu itam dafay am parce que boo xoolee ñi nekk tugal itam dañuy participer à hauteur de mille milliards euh, comment dirais-je à hauteur de plusieurs milliards. Mm. ci PIB mm. Afrique ci PIB Sénégal. donc du coup war nañ gën a mën a orienter le débat. Mm-hmm. relatif surtout à l'immigration clandestine d'autant plus que tey Sénégal Afrique war nañ ci mën a jëlee njëriñ baax a baax. Euh, ba tey ci immigration clandestine euh, bu ñu ko bëggoon xeex nga foog ne am na ay solution yoo xamante ni mën nañ ko fi dindi ndax bu ñuy xayma sax yow mi nga xam sax xam-xam màcc na ci mm-hmm. ñaata nit tey ñoo ci daal di ñàkk seen bakkan mm-hmm. est-ce que mën nga ko wax ah, alors sànq maa ngi la koy wax mm-hmm. déjà barki diggante barki démb ak démb lu toll ci ñaar fukki ndaw jàpp nañ leen fële ci diwaanu Ndar euh, également ci diwaanu Tunisie lu toll ci 145 ndaw itam def nañ leen loxo tey boo Euh, ci diwaan Melilla ak mhm. Keta mhm. di nga gis ay ndaw Afrique yu bëri yoo xam ne daanaka ñu nga ca mhm. maa ngi lay wax ne euh, li ma jot a lire ci statistique li toll ci 2014 ba juin 2022 ñu ngi au mois d'août euh, tey lu toll ci 11000 ndaw ñakk nañ seen bakkan 42000 ndaw jot nañu yegg ca diwaanu Tugal pour dire que tey statistiques yi mën na weesu sax loolu. Mhm. ndax itam euh, wàllum géej la. Mhm. wàllum géej la mhm. am na ñoo xam ne mën nga leen gis am na ñoo xam ne mënoo leen gis itam am na ñoo xam ne dañuy réer feneen furul ci wàllum géej donc pour dire que statistiques yi c'est des statistiques progressives donc nañu xaarandi peut-être fii la fin ñun ñu mën a def benn statistique bu global par rapport surtout à cette question itam mën a def rapport yoo xam ne xëy nit ñi nañ ci mën a sukkandiku fàttali immigration euh, clandestine ci réewum Afrique rawatina nag ñun fi nga xamante ni tey euh, ñu ngi fi di Sénégal. damay joxe benn. Mhm. benn benn anecdote mhm. wala sax benn misaal. Mhm. dafa am ab góor. Mm, boo xam ne day door euh, benn benn femme. boo xam ne. day door doom ji naan ko dee del nuyu sa maam saa yoo yeewoo. E, saa yu ko defee rek xale bi frustré bu bañ a nuyu maam ji. maam ji woo ndaw si ne saa yoo xëyee yow del ànd ak sa doom di mun gi mu def ko benn semaine ñaari semaine yaay ji xëy voyager mhm. ndaw si doomam si jëm boppam mooy yeewu di nuyu ji maam c'est-à-dire il la pédagogie de l'exemple mhm. fi ñu toll ci di diwaanu Sénégal fi ñu toll ci diwaanu Afrique mhm. il doit y avoir ce que surtout à l'immigration clandestine des forums yi nga xam ne euh, du yam ci wàllum théorie Mhm. mais dafay nekk des formes yi nga xam ne en réalité mhm. euh, dañ ci jóge mhm. ñu def l'élaboration des stratégies pour lutter contre l'immigration clandestine li njëkk mooy ñu xeex ñàkk naka la ñuy xeexee ñàkk naka mooy y'a ce que l'on appelle les investissements prioritaires investissement prioritaire mooy xool la nga xam ne mooy ay initiative porteur nga financer leen xool des projets porteurs nga financer leen xool itam la nga xam ne moo mën a nekk benn mbir boo xam ne xëy na mën nga ko tegandi nga tegandi ko du mhm, côté mhm. beneen bi mooy euh, ndaw ñi nga xam ne itam mhm. euh, souvent seen euh, psychologie daf leen pousser à ce que xëy na ñu tekki-tekki bu gaaw nga gën leen a orienté par rapport surtout à la patience par par rapport surtout à la confiance en soi loolu itam bu amee gëm naa ne solution mën na am beneen bi mooy ñu xeex xiif ñu xeex xiif gis nga tey ku xiif day mm-hmm. yomba déplacé wu et eh, sunu borom dafa wax lu am solo mm-hmm. mu ne je vous ai créé pour que vous vous connaissiez mm-hmm. maanaam dama leen a sàkk ngir ngeen xamante kon sàkk googu noonu ñun ci suñu bom jëm bopp mënuñu toog fa ñu dëkk foog ñuy déplacé wu mais le déplacement doit être régulier mooy organisé donc nag loolu itam foog beneen solution bi xëy na ma dugg ci les états africains et le courage de parler aux états européens mooy faciliter l'obtention du visa mhm. faciliter les papiers yi nga xam ne moo mën a permettre ki voyager nekk en sécurité mhm. mën a liggéey comme ni mu waree ngir mën a investir dans son pays d'origine mhm. loolu itam bu amul rek gëm naa ne ci jafe-jafe la ñuy nekk euh, leneen li amaana xëy na mooy itam gën a ñaax ndaw Sénégal ñaax ndaw Afrique wax leen itam le continent africain c'est le continent d'avenir waaye itam warul yam ci théorie kasi ndax déwél euh, bu rëppee ci xare mu jéem ko Euh, tey li nga xamante ni aussi di immigration clandestine gisoo ne hmm. ci euh, ba tey esclavage dafa nekk ci ci àdduna hmm. ndax euh, ñoom bu ñu bëggee ñëw hmm. pour ñu ñëw Sénégal dafa yomb eh suñu bëggee ñu dem fu nekk dafay yomb mais ñun pour ñu jug jafe bi jafe dafa mel ne daal colonisation bi ak esclavage bi mun na am terme bu jógee na fi waaye jëfin yi ba tey ça prouve que ça existe alors man personnellement je je je je je magnifie surtout ta prestance. Euh, mm. Surtout également ta pertinence parce que mmh. ça montre qu'il y a ce que l'on la linéarité par rapport à la recherche yi nga jot a def. Mm-hmm. Parce que li tax nga def similitude. Mm-hmm. entre immigration clandestine et euh, colonisation mooy que ne comprendre nga réellement le problème. daal mm-hmm. dama la ci félicité bu baax a baax. Euh, bien sûr mhm. c'est euh, la colonisation euh, métaphorisée parce que dafa am boroom xam-xam bu wax la colonisation c'est la chosification mhm. donc ñu xam ne looloo di kat ci beneen anam mhm. waaye itam jàngat war na ci mën a am nañu xool rek ñun itam naka la ñuy daggee bu mu ñaam bi su ko defee itam dinañ mën a am cette liberté parce que la liberté n'est pas seulement physique elle est morale elle est participative donc ñu gën ci bàyyi xel itam et gëm ne itam Afrique lu a a ndax itam euh, suma téere bi maa ngi ko ci xaatim bu baax a baax yaakaar naa mhm. euh, quelque part bu may wax liberté mhm. donc pour dire que réellement tey man dama am ngëm-ngëm pour l'Afrique mhm. mais pas ngëm-ngëm boo xam ne dafa jëm ci wàllum euh, toog di wax kase lu ma gëm la ne mën na nekk Afrique nouvelle mais Afrique avec cette jeunesse africaine pour rappeler l'Europe n'est pas plus nantie que l'Afrique pour ceux qui connaissent la vraie valeur de la de la recherche. Mhm. loolu la itam euh, ñu gëm ne rek mën na sotti. Mhm. et yàlla itam mu jàppale ñu ba ñu am cette conscience collective. Mhm. voilà euh, ngay écrivain tamit euh, di bind ay téere yu am solo est-ce que tey Assane Sarr ndax ñu ngi signalé ne waxtu bi jot na. pare na pour bind benn ba téere boo xamante ne dafay wax kase ci wàllum immigration clandestine parce que nit ñi soxla nañ ko nga daal di koy partager ak askan bi rawatina ñu nekk ci Afrique ak Sénégal ak adduna yëpp. sànqam mi sama lanc yaakaar naa mhm. noonu lañ koy waxee mhm. Mhm. Euh, bon xëy na laa topp donc du coup yenn yi itam xëy na bëgguma jiitu paaka bi ci mbaram waaye itam bu ñu yàlla suturalee bu baax a baax itam euh, dinañu yeggali un projet relatif surtout à ça et que du nekk ci loo xam ne c'est des réflexions euh, yoo xam ne dañ koy tënk ci dégg na mais non non dañuy dem ci lieu yi nga xam ne en réalité foofu la immigration gën a bare. Mhm. ñu interviewé des gens yi nga xam ne en réalité c' est migrants de retour waxtaan ak ñoom. Mhm. xool les organisations itam waxtaan ak ñoom jëm ci surtout euh, l' de ce livre. Mhm. gëm nañu itam dina mën a en tout. surtout avec l' de tout le monde. yow itam je t' invite à ce que tu fasses la même chose. c' est mu nekk un sujet boo xam ne. Euh, jàngat bi ñu ci defandi ak recherche bi. war na pousser à d' autres itam ñu am surtout. Euh, Mm-hmm. et puis euh, di la jaajëfal bu baax nag nga daal di tàggoo ak mm-hmm. ndaw yi euh, daal di leen di jox benn message bu nga xamante ni mun na tax ñu xam ne mun nañu yem tey ci seen dëkk. Mm-hmm. ñu tekki seen dëkk ba jariñ seen dëkk. aussi d' accord alors am na benn texte bu ma bu def ci empreinte. maa ngi ko dippee empreinte. Euh, enraciné dans l' Afrique noire mienne. de la chaleur. de la pleine lune. ou l'Afrique de la savane ancienne. Mhm. Ouvre-toi, terre des forts, des dunes. Mhm. De ma mère, tu porteras l'humanité mhm. et tes fils chanteront en cœur l'unité. J'ai rêvé d'une Afrique loin du désespoir, à l'orée des écrivains de ta belle histoire, dans ta belle culture enracinée, mm j'ai écrit à Cheikh Anta mes empreintes mhm. et humé la senteur de ton futur décennie, mm se dissolvent tes larmes, terre sainte. Mhm. Mu un message mhm. euh, aux jeunes africains, un message à l'endroit de ma modeste personne mm -hmm. à l'endroit de toi à tout le monde et je pense que dina am benn finalité mm -hmm. finalité bi mooy ñu am cette conscience collective mm -hmm. finalité bi mooy ñu gëm ne l'Europe n'est pas plus nantie que l'Afrique mhm. pour ceux qui connaissent la vraie valeur de la recherche mhm. di jaajëfal la bu baax a baax di mhm. jaajëfal ñu doon seetaan di jaajëfal monde entier euh, ndax itam euh, ku tukki mën a nettali. Mhm. Euh, jërëjëf mbokk internet soppee ak téléspectateur yi ñu doon seetaan waaye itam di la jërëjëfool bu baax euh, Assane Sarr mhm. parce que partagé nañ ci say fruit de connaissance yi nga ah, xamante ni am nga ko <laughs> ci wàllum immigration clandestine euh, di fàttali tamit nag taskatu xibaar la boo xamante ni ku yéwén la ku baax la mhm. parce que fekk naa la leeral TV nga dalal ma ndax nee naa ku la jiitu si néeg bu lëndam moo lay wan naka ngay toogee et avaarul ci xam-xamam Euh, di la jaajëfal bu baax waaye itam di jaajëfal ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ci technique bi di nii ak Fallou ñu leen di jox dig daje ba beneen yoon ak yeneen i invité